entendu ici, c'est euh, il sort par la grande porte, il a pris une décision euh, sage. stratégie de communication ñooñu dañuy observer peu. François Sène nañ budget dafa muus a di Sénégal oui Sénégal ba Je vous présente les principaux quartiers et attractions de Dakar au Sénégal. Paul, l'université, de port maritime, l'aéroport et de chemin de fer depuis 1870. ñëwaat ci partie violence bi nga xamanteni nak moy manipulation régie sous des vidéos bi nga xamanteni disponible na ñen jox mako jëmele ko dal ci ñi nga xamanteni identifier identifié nañ leen ñu don saccagé siège ou taxawu Sénégal bu Khalifa Sall fi ci du parti socialiste ñoom ñoo ko fa indi ay recrutement de nervi ay dem attaqué ji ay toog ba def ni ba gis ni instant bi nii pour pour sur suma adversaire damay sax jël suma yëf ma taal ko après ñëpp ma jiiñ leen ko. maana sax ñu dem taal seen siège pour jiiñ ko. ils sont capables de ça Parti est capable de saccager son propre le siège de Taxawu. Hmm? pour après dire que non parce que oui c'est Abbas Fall qui a koy waxee moom Maman, euh, euh, il a prêté le flanc mais man jusqu'à l'extinction du soleil hmm. Barth moi def sagage kon ñëw gisandoo vidéo bobu ku ci bëgg commenter mën nga woté ci 751 59 59 indi ci sa xalaat man ma indi ci sama xalaat ñoom ñoo ko dippee l'homme mystérieux l'homme mystérieux votre attention s'il vous plaît muy vidéo bo xamanteni caméra de surveillance yi ñoo ko génnee bi nga xamanteni Samba Boy yi ñoo ñëw saccagé siège yu taxawu Sénégal bu Khalifa Sall bi nga xamanteni ni Barthélémy fa la bok donc biñu démé demee ba ci biir ñu xol naka lañuy def di def ci seen habitué muy wa Pastef parce que vidéo bi ci panelu Pastef la ko jëlee audio yi ko accompagner maa ngi ak moom te bés su ñëwee dina ko génnee ñu jël ben photo Barthélémy Diaz tek ko moy photo bobu ñu tek nonu jël waji ñu tek xol leen waji rat xol xool leen waa ak doxalinam mu leer na leen ke ki ak bi jazz bokku ñu sax nu ñuy doxé bokku ñu jëm bokku ñu taxaway xol leen xol ji waji jaa ngi noonu ñu tek ko légui jël photo bi jazz bu nekkoon à côté tek ko parce que tol Pedro lo sol ñu génnee ko dal di ko koy jox xaaral ma jël ben invité allo vidéo bi indil ñu vidéo bi pour wal ne ni ils sont des experts en manipulation xëy nañu def nañu li ñuy def gis nañu ministre de l' intérieur waxul ñu ngi laaj ndax poursuite yi dina egg ak ministre de la justice ñu ñëw créer seen benn montage indi benn waay ba nga xamal ni que Barthélémy Dias moo def mbir mi ñu jëliwaat beneen auditeur comme ñoom ñoo moom émission bi ah kooku dem na voilà donc ci biir loolu def seen benn vidéo bëgg ko manipuler mel ni Barthélémy Dias moo ñëw taal siège am jël benn nit Barthélémy Dias dof na ret ñëw di ànd ak ñi nga xamante ni ñooy toj mu ànd ak ñoom ñu jëli ji ko may woo rek. oui allo Allô waa ji laa kon donc def sen vidéo bëgg manipuler wat askan bi duggal ko ci sen ay panel pour que ñu ne ki ki dafa nuroog Barthélemy Bokku ñu doxalin ak Barthélemy Dias est-ce que tay mom dof na bay ànd ak ay xalé ñew di taxaw di ko fekkee jàkkaarloog fi nga xamanteni moy mooy siège ay auto nek fa gardien nek fa daxé xalé yi bañu baye fa li nga xamanteni moy sen ay carte ba paré ñu tuddé ko l'homme mystérieux fiable xol xolal replay

ñu vidéo rek manipulation bi nga xamante ni indi nañ ko donc li euh, ma ko waxee ñoo ko créé dugal ko ci seen biir jël li nga xamante ni Barthélémy Dias wax na ko ñoom mën nañu demaat ci guddi si taal indiwaat ko multiplier ko ba noppi daal di jëli kilifa bi nga xamante ni dafa newoon mouvement citoyen la bokk Y'en a marre xoolal ma kii ak Barthélémy Dias ndax dañuy benn kilifa di yëkkati ay wax ngir lan poste PCA est-ce que kii Y'en a marre bi mu doon wax mouvement citoyen looloo ko taxoon jóg xëy na nekkate privilège moo ko taxoon jóg ak poosam waaye sénégalais yi gëmuñu seen wax Barthélémy Dias Seras lu mu cuune cuune yag dox dëkk Ndakaaru je crois que du yoni ay boy ba pare ñew di taxaw fu mu taxaw yor téléphone di wax à quatre heures du matin alors que c'est quelque chose bo xamanteni sen coup raté na kenn jàppu donc euh, moo tax Abass Fall sukkandiku ci pas dafay porter plainte le lieu pour retarder ay poursuites judiciaires ndaxte qu'il est procureur de doon autosaisir ci kawu Abass Fall na dafa défier kii nga xamante ne mooy le ministre de l'intérieur de Jean Baptiste donc je crois que tey soit taxawee nga bëgg doon député assemblée charles nga ne képp ku qui ci campagne bi perte nga ndaxte immunité moo la protéger. alors que amagoo immunité nekkagoo député installé goo ñu la nekkagoo dara je crois que ñàkk xam weesuwul tey Abass Fall di que kàddu yooyu je crois que nag tey sénégalais yi a war yi ñoom ñoo war a xool kan moo leen war a yor ndaxte juróom-ñaari weer a ngi nii yàlla war na leen lépp loo xamante ne mi ngi ci kaw suuf ñoom gis ngeen ni ñuy waxee et je crois que Barthélémy Dias xanaa nag wax dëgg yàlla su dee dafay dem sax bay dem taxaw fa fu mu jëlee carte d'identité yi nañu xool vidéo carte d'identité yi ak carte Pastef bi nga xamante gis nañ ko foofu ndaxte mi ngi nii carte Pastef Barthélémy Dias fu mu ko dans di koy indalé donc ce qui veut dire parce ci ay caabi auto ay carte bancaire pour wax la sax ñi ñu yoni sax duñu ay professionnel naka ngay démé ci lieu de crime du yóbbaale li nga xamanteni daf identifier donc je crois que ce sont des choses yo xamanteni c'est pour manipuler le peuple et le peuple est assez mûr jamono dit pour que ñu pouvoir les manipuler donc ce sont des choses yo xamanteni je crois que ay affaire au bas niveau le li am solo ba am solo moy nit ki soy xex da ngay xex ak idée nit ki soy xex da ngay xex ak conviction nit ki soy xex da ngay à ak lo xamanteni ni bëss boko boo ñi la gongo donc je crois que loolu la ñuy xaar ci ñoom mais xaaruñu leneen ci ñoom donc euh, daal li may bëgg a wax daal mooy jamono ji daal gis nañu aussi ñii nga xamante ni daal ñoo ngi transhumé ci biir transhumance boobu nag gis nañu daal doy na waar trop lan moo leen yóbbu ndax askan bi moo leen yóbbu ndax gëm Pastef moo leen yóbbu tey gis naa ñu bëree ñu doon ñu transhumé démb gëmuñu woon Pastef andu ñoo nag Pastef ci lu muy doxal xëy na tey ñoo nekk ci nguur gi moo tax ñu bëgg a entendu ici, c'est euh, il sort par la grande porte, il a pris une décision euh, sage. Je vous présente les principaux quartiers et attractions de Dakar au Sénégal. l'université, de port maritime, l'aéroport et de chemin de fer depuis 1870.